rabbi inni lima anzalta ilayya min xayrin faqiirun rabbi ya ahmadu ala muhammadi alayhi xayru salawaati samadi barik li allahumma fi xayaati واجعل فؤادي وطن الآيات jërëjëf sëñ boole asalaamaaleykum wa bi ñu santee yàlla di sant sëriñ Touba di jaajëfal maam Cheikh Rahima ñoo ngi delloowaat di nuyu kilifa gi nga xam ne moom lañu ñu toogal Serigne Koso ibnu Cheikh Amadou di ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool tànd ak wér di nuyu sëriñ xaadim moom it di sëtub sëriñ Afia Mbakke ànd ak sëriñ Koso ci karawaanu maa yomb bii nga xam ne moom la ñuy def di ci fàttaliku jaar-jaar yi nga xam ne sëriñ bi nekk woon na ko foofa ci barab yu wuute di ko tàmbalee Libreville ak euh, maa yomba ba ci làmbar na tey nag euh, ñuy war a def karawaan bi jëm foofee ca Gabon di ñaan li nga xam ne sëriñ Touba defal nañu ko ñu yëg ko ci delloo ko njukkal ndax sëriñ bi kat bi muy dem li nga xam ne wax na ko mooy yéene woon ñëpp jàmm ci demam gi nga xam ne mi ngi ko doon dem ba ne maa ngi dem liggéeyee li yàlla su ma ñëwee ngeen añ añ boobu nag yaakaar naa ñëpp gis nañ ci seen bopp kon bu ñu demee ba ànd ak sëti sëñ Touba yi nga xam ne ñoo jiite liggéey bi ànd koog karawaanu yomba ci njiital sëñ Cheikh Mbeng loole dañ koy rafetlu di ci sant yàlla bu baax a baax mu mel ni nag ñun li ñu gën a yéem ci ci ci ci karawaan bi mooy sëriñ bi bi muy dem Gabon euh, bàyyiwut àdduna Cheikh Amadou Bassir waaye batale woon na aw turam wax ne bu dee góor nañ ko ko tuddee Bassir bu dee jigéen ñu tuddee ko Soxna Jaara yàlla dogal Cheikh bi Fall njëkk am am basiiru tuddee ko sëñ basiiru daan ne sëñ Tuubaa la mu njëkk wax mooy am daan tuddee naa ko basiiru ma ñëwagul yàlla dogal bi sëñ basiiru ñëwee muy am sëñ basiiru tey bu ñu demee ba ànd ak ab sëtam mu dem di nemmeekuwaat liggéey boobee nga xam ne e, sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dana waat naa wàcc naa wàccaleel ku yaakaar sëñ Musaa Ka wax na ndagonte nag demam gi billaahi wolof ak nasaraanu kon ñëpp dem niiraan buñ ko amee ginnaaw yàlla sëriñ Touba la kon suñ koso yëg-yëg boobu rek lañ am ak tubaab vision gi nga xam ne mooy suñ xaadim mii di suñu xarit nga ñaanal ko ci liggéeyam bii nga xam ne dara taxu ko jóg lu du sëriñ Touba sëñ xaadim yëg-yëg bi daal mooy la sëñ Touba waxoon na maa ngi liggéey su ma ñëwee ngeen añ te tubaab bi nattu na sëriñ bi ci pas-pasam bëggoon ko ci tiiñal yàlla faral ko mooy dem na ba ne ko yàlla waxoon ne doo tooñ sa borom doo sa morom te boo jullee ci suñ gaal gii di nga ñu tooñ boo julli boo boo julli wuti di nga tooñ sa borom sëñ Tuubaa nee na kere bi may jël der bi di ko sànni ci géej gi wóoru ma ne woon na sax su ma ci su ma ko sànnee dina diig wala du diig waaye yàlla sama borom rek laa doyloo yàlla moomu nag mu doyloo woon nga xam ne nee na ci laa tukki ñëw ci mbaaxam gi li ma am ma jox ko ma bokk ak ñi ma ko war a bokkal ñëpp ne jàkk yaa ngi noonu fu waay nekk nga mën a mën ngaa noddu kon mbaaxu sëriñ Tuubaa googu dañ koo war a yëg dañ ko war a delloo njukkal dolleeku njukkal nag du dem fa mu demoon xaj na wàcc fa wàcc na fa wàcc fa waaye li am solo rek mooy yëg na sëñ Touba lii ginnaaw yàlla bu amee ba sotti ku ne nekk fa nga nekk muy sotti sa mbaaxu maam gi la Mbàkke kon ñoo ngi lay teewlu nga soññuñu ci yaatal liggéey bii nga xam ne moom lañ jëm ca Gabon ci sa barkeb maam si Amadou Basir waaye sa barkeb waajur wu baax wi nga xam ne bu sañoon lu baax day koy yaatal rek waaye du wàññi mukk muy Cheikh Amadou Mountakha yàlla na fi yàgg te wér sëriñ Kosso bisimilah kàddu gi billahi min ashaytan irrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin sayidina moolana mohammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi wa ridwani wa tamkin salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki taalib yëpp mbokki jullit yëpp maa ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar di jiital nag sama ay kilifa yi nga xam ne ñoom laa bokk réew mi yëpp tàmbalee ko ci ak Cheikh Mouhamadou Mountakha moom Cheikh Mouhamadou Bachir mi nga xam ne moom la yàlla def tey nekk ci njabootu ci bopp njabootu Sëriñ Tuubaa di ko siyaare di ko ñaanal suñu bopp may ko wér may ko fan gudd te àggale ay yéene bi tamit gannaaw loolu nag dañu dajale fii ci aéroport bi tey man ak dong yi ngeen gis ci sama gannaaw ak dong yi toog ñu ma sëñ Bolle mi sëñ Cheikh Khady Gueye mi ñu nekk ànd ak man ci yoon wi yoon wi du yoon lenn lu weesu yoonu ndigal rekk la ndax bi nga xamee ne waa Gabon seen xel nekk na ci ziar bii ñuy doxi ñu war a jóge Libreville at mu nekk euh, toppaat tracé yi nga xam ne moom seen bi jaaroon di yeesal seen siyaare ak seen ku yaakaar jógee Libreville dem Lambara nag bi ñu fa jógee dem Mayomba euh, loolu day liggéey bu rëy boo xam ne dong yi seen bopp ñoo am ab xalaatam te muy xalaat bu rëy di xalaat bu rafet Euh, ndax ab bi moom dundu ci sëriñ bi rek moo ko war saa su muy dund rek muy dund sëriñ bi ñu ne ko sëriñ Mountakha di diggale saa su nekk ñu ko nag wax ko sëriñ bi mu jox leen ci ndigal rafetlu ko lool jox leen ndigal ñu wéyal ko mu joxoon ma ndigal nag man ak seen Xaadim nii ñu àndandoo dem jëmmal jëmmal ko fa euh, mate nañ ko matewu ko loolu amul solo ndigal li nga xam ne moom lañu jox rek ñun moom la ñu xool doonte xeeb nañ ko suñu bopp waaye ñu àndoon ak ñoom 1900 2019 defoon ko jógee ndimbal bi dem ayam ba ànd ak bokki taalibe bi yëpp yàlla dogal itam yoon woowu alhamdulilah yàlla dogal ñu am ca ay ndam yu am solo euh, xëy na Covid bi taxoon na ñaari at yi mënuñu ko war a def waaye ren itam taalibe yi dogu ci ne waaw ñu def loolu incha allah yeesalaat ko ni ñu ko defee it sëñ bi daal di yeesalaat ndigalam ci noonu moo waral jéego yi biñ dikkee fekk bokki taalibe yi nga xam ne moom la ñoom la ñu war a àndal dem ci bis boobee. ñu nekk ci aéroport bi di ñu ba taxan noo ngi nii di waaj ngir dem foofu di jaan yàlla sunu borom tabaaraka wa taala ci barkeb Sëriñ Tuubaa may nu mu dem ci jàmm eh, def fa lañ fa bëgg def ci jàmm dellu siwaat ci jàmm fekk fi sunu kilifa ci jàmm fekk fi sunu njaboot ci jàmm eh, mu yoon woo xam ne nag yoon woo am solo la ndax eh, am na ay xew-xew yu xew ci biir Libreville ngir yeesal sunu Pastef Euh, maama yomba nag moom ku ne xam ne sëñ bi am na fa juróomi at sëñ Tuubaa nag benn bëccëg fu ko mas a am fii ci réew mi eh, njaboot ga ma fa fekk kooke ma fa fekk ak njabootam ba àdduna yi tukki duñu ko fàtte mukk te duñ dañu di ko dundal kon nag foo xamee ne eh, nekk na fa toll ci juróomi at yi nga xam ne moom la nekk wéet nga xam ne gisul ku dul ku dul kuy wax eh, yeneen làmmiñ tubaab mbaa yeneen làmmiñ day doon dégg gisul sax kuy wax dama ne ma ne ah am na bis boo xam ne dafa wax ne dafa gis kenn ci koo xam ne dafaa gis kenn nit koo xam ne nee na nee na wala famille dafa lënt lëndëm lool waaye nee na gëj a gis gi mu gëj a gis koy wolof tax na nee na da ko saf lool te neex ko loolu moom ak tumuranke la tumuranke googu itam fu tumuranke yegg yegg na fa ndax jaar nañ ci jëmam sàkk jaar nañ ci lim gën a fonk diineem gi di ko jéem a sànk loolu lépp jaar nañ ci moo tax sëñ mu Ka di wax ne sëñ bi nee na am naa fi juróomi at lu topp juróom ñaari at lu topp du dërëm du dugub du ne am naa fa juróom ñaari at lu topp du soxna du doom du dërëm du fepp loolu sëñ bi tubarankeem noonu la meloon waaw am naa fa juróom ñaari at ak lu topp du soxna du doom du dërëm du fepp <laughs> loolu nag lu doy waar la kon nag euh, loolu fi ko sëñ bi defee mm-hmm. ànd ak tumuranki googu mm-hmm. mas naa waxit mas naa waxit euh, suñ benn mbokku taalibam naar mm-hmm. euh, wan ko yaar xasida ne ko jàng ko mu jàng ko mu ne ko xasida yi de fa ma ko doon taalife kenn ku dul man bu fa nekkoon dana tal leneen lu dul di bind di bind waaw ah, waaw sàkkantu maag di bind lu mel nii kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sant yàlla bu baax ndax foofu la defee lépp eh, nee na Fra toog ba mel na jant nee na bu doon ba ma fay dem weer la ba ma fay jógee ab jant la kon nag loolu lépp alhamdulilah rabbil alamin eh, kon taalib bi bu yàlla xiit nga dem fa di fa siyaare bu boobaa dañ lay rafetlu siyaar boobu te eh, dina ci dolli rek ay ay ay ndam ak kañ incha allah. suñ ko jërëjëf dafa am lu may yëg ci waxtu nekk saa bu ñuy waajal bis bi. ànd gi nga ànd ak ñun nan nga gisee yow mi nga xam ne yaay sëtub sëñ Basiiru te bi sëñ bii dem ci géej mu dénkaane woon dénkaane mi tedd yooyu ban yëg-yëg nga am ci ci ci ci yoon wi boo booy booy booy dem maa yomba ban yëg-yëg nga am ci ne sa maam bi sëñ bii nekk fii booba gën a gudd àdduna nga dem ba tey sëñ Muntaxa di di di sëñ Basiiru di sëñ Tuubaa nga ñëwaat taxaw taxawaayu jiite liggéey boobu ban yëg-yëg la sëñ la sëñ ko sa am waaw sëñ eh, ki ngay waxal ni day yëg-yëg bi mu am ci loolu yëg-yëg yu bari la du sox benn yëg-yëg ndax eh, yi ci mata a fàttaliku yëpp dafa bari li ci jiitu mooy tubaab bi bu fekkoon te pexam sotti na sëñ Basiru moom du gisaat sëñ Tuubaa du ko dégg la ci am dégg la ci am day dégg ñu naan ku ñuy wax sëñ Tuubaa mooy baayam nii la meloon naa la meloon bu fekkoon te ne seen pexe jooyoon na noonu lay demee loolu mat naa sant yàlla ci bi nga xamee ne ñoom seen pexe jëyut ba ñu demee ba foofa itam am na bis am na bis ma ñi ma bokkal toog ma wax leen ne leen dañ demee ba maayom ba fi sëñ bi sampat ñeenti bantam yi te tubaab bi ñëw dammate ko sànni ko barki démb rek la ma ko nit nettaliwaat ne ba ma koy wax sax àll laa ko waxee waaye fàtte woon naa ko dañoo toog ci barab boobu ba yàgg may leen suñu yoon bi day du ma ta sant yàlla la ndax bu fekk fekkoonte tubaab yi seen pexe joyoon na buñ dikkee fii xëy na duñ fi mën a waaye nag buñ dikkee as njal la ñuy wan nii nenu mi ngi nii ndax kon dañ doon sàkk mooy mu wuy ji boromam te foofee te bu ko wuy woon boromam foofee it dañ koy wutal as njal rek teg fa bu ko defee buñ naan njal si kat mooy moom ñu lu doy loolu yëg-yëg la yëg-yëg ci des nag mooy mm, tumurankeel gi nga xam ne doon nañ ko tumurankeel te lépp jublu ñu woon ci lu dul mu faat ba kanam waaw ngir rek ab liggéeyam bañ a waaye loolu yàlla daf ko gàntalu ndax dafa wax ne man bi may dem ni ma mën a misaale sama yoon wii ci géej gi eh, dafa mel ne nit koo xam ne dafa toog ci barabam di def nangam nit fekk ko fa ne ko doog fi defe ñu di ca béejoo ñoom ñaar ñu di ci béejoo di ci béejoo di ci béejoo nee na ba ànd na meñ ñu dem ba mu yàgg ña fa ñañ fa bàyyi woon toog leen seen leen ñoom ñaar ñu ànd di ñëw biñ dikkee ka doon def toog fam toogoon di def te ka ko doon tere tereetu ko loolu nu mu demee yow kon nag alhamdulilahi rabbil alamin yëg di kii yëg bu bari lañ ci am xam nañ ne daal ñun sëñ Basiru bu fekkoon te pexam am na day dégg ñu naan sëñ Tuubaa nangam yëg-yëg bi ci topp mooy bi muy dem yëg wax ne moom maa ngi dem liggéey daal damay jël si waat bi muy dem wax ne bu dee góor nañ ko tudde Bachir bu dee jigéen nañ ko soxna Xadi muy góor ndax ni ko Cheikh Ibra waxee muy góor di tudde sëñ Bachir te Xadi moomee mujj na am maanaam sëñ bi bi mu nee nañ ko tudde sëñ Bachir bu dee góor bu dee jigéen nañ ko tudde soxna Xadi yaar yëpp mujj na am sëñ Bachir mu jina am soxna Xadi mujj na am waaye Cheikh Ibra moom dégg-déggam boobee dégg moom koo gën a kawe ginnaaw bu dee bu dee góor la jëkk a wax Cheikh Ibra xam na ne góor la mm, mm. moom mu jëkk moom mu jiitu ko ca far xaat balaa muy ñëw doon alhamdulilah rabbil alamin waaw soxna Xadi mi nga xam ne itam moom lañu duppee waajuru kii mu jën a am ba nekk na fi as ndiir ba dëgër ma nga ñu denc Bàmpara barki dem la ko am Bàmpara doon màggaral ci muy màggal boo xamante dañ koy def rek ñu fàttaliku soxna Xadi moom mi nga xam si nañ ko mi ngi njaaram mu génn àdduna mu ne nañ ko yóbbu Bàmpana Bàmpana sax la Bàmpana la waaye loolu lépp daal yëg-yëg bi ci bi ci bi ci bi ci bi ci des mm-hmm. rek mooy li ñuy wax li nga xam ne moom la sëñ bi wax rek ci yoonu géej gi mm-hmm. nga xam ne sëñ Moussa Ka junj ne ko mm-hmm. te mooy boo xam ne yoonu géej gi amutoon ba mu liggéeyee liggéey bu toll nii ba agsi fi mu agsi ci boroomam bu boobaa lii mu sowe ci aw nit du leen mën a sowe te bu boobaa ñu ci ëpp daañ mën daañ dem sawar ndax li ci ci ci saayir si mooy tubaab bi rek dana not réew mi not goo xam ne allah ko ba duutu jib lenn loo xam ne luy niru aw yiw la woo xam ne taxawaayu lislaam la duutu jib te ku ko koo weddi nga seet ko ci réew ya nga xam ne da dañoo dañoo tubaab bi dafaa dem coloniser leen te yàlla def colonisation ba sotti idéologiquement maanaam mu dugg ci seen ngëm dugg ci seen i xalaat ba xalaat yooyee sax fa na réew yooyee mel noonu lañ war noonu la ñuy xoolee Sénégal ci kaw bu fekkoon te amuñu woon sëñ Tuubaa kon sëñ Tuubaa mënuñu dudul euh, yaakaar ko sant ko gëm ko te di ko liggéeyal guddi te di ko liggéeyal bëccëg te te bàyyi ko suñu lépp mi nga xam noonu ko sëñ Muntaxa dénk maa ngi sant taalibe bi yëpp di gërëm ñëpp. léegi sëñ bi mën ngay laasé xam naa ne taalibe yi bari nañ waaye ku mel ni yow te yor sant wi te demagut foofee sëñ bi nekkoon ban message ngay laasé ku war a dem maa yomba. ci yëg-yëg bi nga xam ne moom laa la wax léegi ngir. neefu suñ tubaa nekkoon foo xam ne nee na woor naa fi weeru koor ba ba ba ba koor gi jeex daanaka du gisuma lu muy ndogu ci xobi garab yi yu mel noonu ndax waruñoo gën a bàyyi xel ne foofa ku yor sant yi wala ku bokk ci yoon yi ku mën di doon war naa mën a dem seetlu ji foofee suñ tubaa nekkoon euh, comme ni nga ko waxee samp fa bantam yooyu ñu sempi ko woor fa amul lu mu xéwloo ban yëg-yëg ban message ngay laa si waaw dama koy waxaat rek mu laa waxoon léegi loolu sëñ bi wax ne am naa fa juróom-ñaari at ak lu topp du du du soxna du doom du dërëm du fepp moom nga wax ci loolu nga dugg euh, lancement message bi nag mooy loo gëm-gëm sëñ Tuubaa ak loo ko fonk-fonk ak tumuraanke gi nga xam ne moom la Tuubaa bi yéene woon ci moom loo ko gëm-gëm ak loo ko xam-xam boo demee foofu sa xam-xam dana ci dolliku ndax loola mu ngi tàmbalee mille neuf cent 1895 euh, mu nekk fa ñaari at yu jëkk yi mu ne ñaari at yu mujj yi euh, mu nekk làmbar na jóge fa dem dellu dem ba am fa juróomi at juróomi at yooyu ca 1995 nga xam ne mën ngaa jàpp ne diggante 95 ak 1900 euh, diggante boobu 1895 ak 1900 diggante boobu moo fa nekk ca yooyu jamono nan la waroon a mel par rapport ak tey ndax tey jii bañ fa demee danañ gis ne luy niru yokkute gisuñu ko fi ba ba deux mille euh, dix neuf bi ñu fay mujj gis maanaam euh, tumaanke rek ma fa am amul dara loo xam ne du ci yokk la amul génn tumaanke goo xam ne maanaam na mu àllee woon tey jamono ak tey amul daanaka amul benn différence kon tey nan la waroon a mel maanaam li ma bëgg wax mooy euh, àll ge munu faa raw ku fa toog tumuranke dana la dal ku mën a doom ba léegi ci l'an deux mille euh, vingt deux kon nag nga dellu delloo sa xel ci gannaaw laaj ba xam jamono yooyu ko nañ la waroon a mel te lu ñu étudier la loo xam ne tubaab bi dañ ko étudier bu baax ndax Afrique centrale dañoo am ay dañoo am dañoo am lu ñu mel dañoo am lu ñu mel climat bi climat la boo xam ne climat bu góor la euh, bari ndox Euh, bari ay godd mm-hmm. bari ay ndegment mm-hmm. ba léegi sii may waxee yow am na fa àll yoo xam ne doomu aadama mësagu faa teg tànkam ba fa Jibril la dee laa fa ba dëgg si Afrique centrale doon ay nit ñoo xamante ne li mm-hmm. ñuy wax bon ñu ñu ñu mën nañoo wax ne ay sauvage la rawaat na ci ay jamono yaa ñàkk civilisé ñàkk mën a jox doomu aadama àqam mën a tumurànkeel doomu aadama néeg ci doomu aadama yooyu yëpp ci jamono dafa am kon ñoom tubaab yi bi ñu ko fay yóbbu loolu lépp eti nañ ko même ba ci climat bi nga xam ne wër te baax sax ci ku ku dëkk Afrique de l'Ouest nga xam ne dafa bari naaj bari ngelaw néew taw ak yu demee noonu boo fa demee ci taw bu mel noonu lan moo la fa mën a dikkal godd ya fa nekk ñu di nga xam ne moom ëpp na yoo ëpp na weñ ak ak am dangar teg ci noonu la war a mën a wàññi nit àll bi nga xam ne itam wax naa ko léegi ba dibi rek léegi laa ba léegi nit mosu ba léegi si may wax ak yow nit mosu dugg di fa teg tànkam kon te boo daanoon boo boo garoon garab ci kaw garab day daanu kon loolu tumuraanke gu mel noonu boo ko bàyyee xel eh, ku fa dem bàyyi loolu xel da loo gëmoon Sëñ Tuubaa loo ko fonkoon luñ la waxoon wax tumuraanke gi dana am loo ci tegal sa bët loolu moo tax maa ngi woo ñëpp ku ko man mu dem mu ñëw fa mu ñëw fa bis rawaat na fii ci karawaan bi ànd ko bokki taalibe yi ñu dem dañ kumpa loolu def fa luñ ci man ci ay ay ay ay ay ay ay ay alquran ak xasaayid yi nga xam ne li ci gën a bari fa la ko bindee woon ñu bàyyi ko yi nga xam ne euh, waru waru waru waru jàpp na ne waru ko bàyyi ci kaw suuf si am na ci yoo xam ne foofu la ko def nag loolu lépp sant yàlla lañ ci war a ngi sant ñëpp di ñaan ñëpp ko man rek bu teewee ko daal noo ngi sant yàlla bi ñuy dem ci ndigal sëñ bi di dem ci ndigal sëñ bi ànd ak ànd ko taalibe yu bari yoo xam ne ñoo dem seen pasteef mate na ko di sant xaadim bi ni nga ko waxee léegi ci taxawaayam bu rafet la sant yow sëñ Cheikh Khady ñu lay sant bu baax sëñ boole ak boole mbokk taalibe yi ñu àndal di sàkku ci mbokk taalibe yëpp ñaanal ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm eh, te lañ fay wuti di ziare ak yokku ci ak ndigalal sëñ bi yàlla may du ko ci barke sëñ Tuubaa. waaw ah, jërëjëf mbokk yi di ko sëñ Koso waxee rek jàpp naa ne ànd ak sëtub sëñ Basiiru daal di dem maa yomba tawféex la ci ku xam ku xamul nag waxuma waaye ci ku xam ànd ak sëtub sëñ Basiiru di dem maa yomba tawféex la. si woon sëñ Xaadim jërëjëf di ñaanal sëñ Seexuna Buso ma nga sëñ eh, sëñ Fàllu Buso ma nga xam ne yëg-yëg bii la waaw ñoom ñi nga xam ne ñoo initié mm. mm. nga xam ne way juram di sëñ Fàllu Buso mm. moo defoon loolu lépp moo ko moo ko moo ko moo ko xalaatoon créé ko taalibe fekk ko ci lu mel ne sëñ Seex Mbeng jiite ko Euh, sunu euh, mbokk sunu doomu bàjjan soxna maam jaara euh, Buso ndox ci ay jéego yu bari ba bay boobu nga ne karawaan bi mujj def moo ko jiite bi muy demit ci karawaan bi loon waajal nga xam moom itam ñu ngi koy ñaan mu borom gàttanu ko ci loxoy sëñ Tuubaa yàlla defal ko yërmaan defal ko jéggal ñu ngi koy defal sëñ Fàllu ñu ngi koy ñaanal sëñ Fàllu ñu ngi koy ñaanal di sam sëñ Cheikh Mbeng ak mboolem kuréel gi nga xam ne moom la ko àndal mm-hmm. waaw luñ ci fàttaliku sunu mbokk taalibe Baddu Seen nga xam ne moom mooma jëkk a dugal mbirum karawaan bi sama sama nopp euh, ak mbokk taalibe yi mu ko àndal yëpp fàttewuñu kenn mu euh, bëgguñoo lim di juum ñooñ dañ leen doon cité sëñ Cheikhouna sëñ Cheikh Mbeng Baddu moom ak mboolem ñu ko àndal ñaanal itam sëñ Fallou ak sëñ Soxna bu Buso yàlla defal leen ay tawfeex ñu fas ko yéen daal di ko ànd Euh, waxtu nekk rek incha allah jërëjëf. jërëjëf comme ni nga ko waxee rek sëñ bi mattal nga lépp ndax soxna jaara daaw dañoo ànd euh, comme ni ñu àndee woon ak yow mu ne daa tëdd ba guddi gént ay baay Fall ñuy sikkar foofa ca maa yomba wallaahi moo ma ko wax keroog bañ demee. ca kàddoom googa sikkar la njëkk a def ca maa yomba jooja ñoo ko àndoon maa ngi yow ak sëñ sëñ sëñ kii kon la sëñ Fallou gisoon sëriñam ba ba taxawal ko bàyyi ko fi sëñ naa tamit di ku baax sëñ Cheikhouna Bousso nga xam ne daanaka fu mu fi toll rek même bu ko antu ñu nit danañu ko leeral nañu fii laa toll ñoom sëñ Cheikh Mbeng ak ñoom sëñ Baddoog ñoom sëñ Kàllam ak jëwriñ yi ko séq ñëpp rek Mbàkke nga ñaanal lit ndax li ñu bëgg rek mooy nit ñi découvrir fan la sëñ Touba nekkoon ci Gabon loolu rek mooy mooy objectif bi loolu rek mooy karawaan bi loolu rek mooy wàccaay yi ndax bari na fa tey jii foo xam ne boo fa taxawee ca lañ gën a bëgg ca seen dëkk ba muy xaalis ñu ne la fii la sëñ Touba doon xaalis bi mu fi nekkee ñu ne la fii la jullee woon montagne sentit ñu ne fii bokk na ci fi ñu wax ne fi lañ ko takkoon muy garab googu ba ba dara ñëw Mbàkke sa maam dañ ko war a xam ba tey ji ñu war ko faa tuddee mbedd moo xam ne yaakaar naa boo demee yaa koy tijjil sa bopp loolee ci ay victoire am la bokk ak leneen lu ñëwagul ndax Sëñ Tuubaa nee na njariñ laa loo xam ne ànd ak lor ànd ak yéen daal bi am suuf xaalis. waaw tey mooy ministre de finance. waaw mooy ministre yor koom mi ko boobu moo yor koom mi. ba ñu ko doon takkit. dem nañ ba def def ko ci turam. ñu tabaxal ko fa jumaa. jërëjëf Mbacke sa maama yor koom mi moo yor lépp. ginnaaw mu noonu la ko defee woon foofa. sax rek ñu ñaan. bantam yooyee mu sampoon. te ñu ñëw dindi ko. sànni ko ci àll ba. ñu ñaan yàlla yàlla dem ba def ko jumaay Sëriñ Tuubaa mu ñetteel juma mu ñetteel ñaari juma yi nga xam ne moom la wax ne moom nga gis sëñ Tuubaa sax di ko yàlla fay ci juma moom macha allah xanaa dafa tolloog yii mën nañ cee tudd waaye ñu dem a dem nun daal ba foofu itam ñu dafa juma ñu jumaay sëñ Tuubaa ñu wax ne fii la suuf seebam tey tey ji jumaay sëñ Tuubaa moo fa nekk jërëjëf Mbacke waaw sëñ Xaadim kon Touba Vision ca kanam ak karawaanu maa yomba suñu xol sedd na ci bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf dërëm lal géej ba julli mu dërëm lal géej ba julli mu mat te bëx dawul xablawul te bëx dawul xablawul xibleeb sëriñ saa ngi xibleeb sëriñ saa ngi kudul sëriñ bamba kudul sëriñ bamba bu jullee sax ci déeg bu jullee sax ci déeg dina diig bu dek sayaan dana say bu dek sayaan dana say baa ngi diir sëriñ baa ngi tax ñu naa sëñ bu mag bi li tax ñu naa sëñ bu mag bi atam yu bari duy atam yu bari ay jëf yu mag la jëfoon ay jëf yu mag la jëfoon yaa ngi seerey jëfam yaa ngi maa yomba maa yomba yombu la dem yumbu la dem ndam lu sell di am ndam lu sell di def leen ko muy élément def leen ko muy élément ni jaam ñi njiit lambar na yumbu la dem lambar na yumbu la dem ndam lu sell di kaa ndam lu sell di def leen ko muy élément def leen ko muy élément ni jaam ñi njiit ku dem ba jeewal ku dem ba jeewal leen te jéeloo leen bokkam jaali wu seen mappandoo lu seen mappandoo yaa ngi nii leen ko maam yaa ngi ku dem ba dawme ku dem ba dawme deewoo dam rafoo deewoo rafoo yow su nga ñëpp salaan yow su nga ñëpp salaan ngeen ron nga ma gaa ngi yal na yàlla fayal ma siyaar bu baax si xarit di sant bu baax nag ci yoon wi nga xam ne mooy caravane Mayumba bi ñu fa yéene faa dem nii pour mën jaar-jaar yi nga xam ne fi la Sëriñ jaaroon mu nekk mbébétu murit yëpp kenn ku nekk bëgg faa dem eh, ñu war fa dem nag teewal fa ñu bëri ngir eh, jox leen information yi nga xam ne moo fay am ngir wan leen barab bi ñi nga xam ne tamit mënuñu fa àgg waaw di rafetlu bu baax nag eh, liggéey bi ak taxawaay bi di ñaan yàlla. ñu dem ci jàmm dikkaat ci jàmm euh, tasa faa ngërëmal sëñ bi jërëjëf. bi moom mooy teewal fa mboolem murid yi rek maanaam wan leen li nga xam ne moo fay am ci fi nga xam ne fële sëñ bi jaaloo mi maayom baag liwér bi rek yëpp dëkk yi nga xam ne daal war nañ fa dem te sëñ bi jaarut fa ñu wan ko mbokk taalibe yi nga xam ne amaana am nañ yéene ñëw waaye mënuñoo egg si bu ko defee ñu mën leen koo wan ci image bu soobee yàlla daal yaakaar naa képp koo xam ne topp ka plateforme yi mu xam ne muy Touba Vision Tawfekh Production muy buy mbind TV bu soobee yàlla lépp lu fay am daal dinañ leen ko jox euh, incha allah ci liggéey bu rafet bu mucc ayib waaw képp koo xam ne daal dem moom bu soobee yàlla di nga mel ne visité nga Mayumba incha allah. man nag maa yor Tawfekh Production.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 amdi wa sukri liman kulli bihi saara lahu ridan duna suqutin inda sarsaara lahu sanaa'i wa ridwaani bila shiqatin musqaadali min bani daymaana ansaara lillaahi kulli la daa abaari makrumatan min artahalna wa fiha jamma man saara in allazina ila sarsara xad xasadu ziyaarati faaraxu daarayni aw saara subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin yaa rahmaanu yaa rahiimu rabbi bimaa yasraa'un asqaana xaat fajaa'a bijaayi afdali man lillaahi xad lajaa'a hamdi li rabbil karim من لا شريك له وصدري اليوم نورا ساتئا ملا محمد صلوات الله في أبد عليه في حزبه كل بكلام أدعو إلى الذي أحمد موائبه جملة خلقي ما يختار من براء ناديته جل ومن وكتماني تكرما هاد وكن لي من لقد بريا رحمن وابن جميل اغل خير رحمة من يوني أني شريما قرآنه الخراء عدمات المصطفى عن كل مفسدات وترحمي خلقايا من جدهم من جل أن حواد ارحم جامي الورى يا هادي رداء يا مالك الملك يا من جل أن حواد ارحم جامي الورى يا هادي رداء موت ما خدنا وقلبه من درار